vos proches et la société en général. En vous faisant vacciner, nous pouvons vous aider, vous et vos enfants, à vous inscrire gratuitement. Contactez Gambia Talents Promotion au 404 593 62 15 ou envoyez un email à info.gambiatalentspromotion.org. Rappelle-toi, le coronavirus est réel. Faites-vous vacciner dès aujourd'hui. guliji yimɓe ka hoore leydi woni ko ƴetti ndu pikiiɗo coronavirus coronavirus noon ko goonga annda ɓale annda dane annda paykun annda mawɗo wari africans ɓe boyi ka hoore leydi sabu noon ala lekki ene kibaruji welɗi ɗin woni ndu heɓi haray pikiiru laabi ko ko coronavirus no o ñawono Amen. Amen. Sere Deus.

kasango wanda ka sai kasango ya masallin dimma na ta na Wow wow. wow, mel ni lu kita gis rek Sadio ba ca la Sadio baa ngi doxal la waaw na ngeen def baa kontaan waaw dafa am lu ndaw mooy nga bëgg la wax ak yéen dafa am yàlla defal ko jàmm yombalal ko yëpp di gërëm suma tantay tamit suma yaay yi ñëw toog nga xam ne bàyyi ma benn woon time yow naa fekk gaay fële waaye gaay lañ di gërëm waa groupe Pakasa di gërëm nag awa dafa am benn julli bu ma ko téewoon bu ma ko ñu bàkk ko awa waaye dama ko décoré benn julli bu nga samarkati bàkk ko wéyal leen ko ngeen defal julli boobu noonu. Thank you.

tey rek ci programme bi la nekk ah, gis nañ ne programme bi neex na torop nit ñi génn si neen ah, yow yaa bu suñu laa la ci tur bi Aida Mboup laa tudd Aida Mboup yow tey loo ñu mën a wax ci programme bi bés bi waa bés bi jànxa buñ sante yàlla julli ci yonent bi sangi sanga yi sallallahu alayhi wa may waxee rek ci làmmiñi suma mag ajaratu tuuti Mboup waaw di eh, Eh, nuyoo bi ci suñ kilifa Aji Njilaan Ngom bés bi nag tey Awa Mboup moo ñu fi dajale di suñ mag ji nekk Amérique waaw Awa Mboup nag ñoom xale yi ñoom la xami mi xam nañ digganteem ak Moussa Ngom Moussa Ngom suñu jaay la Moussa daf daan dem ba Amérique romba mari ñëw dal ci suma mag Awa Mboup waaw muy kóllale bu rëy nag bu mu jiyante woon ak moom mu kontaan ci lol joxoon ko cieur bu reuy cieur bi nak ba legi xale yi teggi wuñ ko xale yi ñun suñ doomi tante lay suñ doomi bàjjen lay ñaari yoon lañ bokkaa ñom nak ci bes bi lol awam bu di am mbégte bu baax ci bes bi di ñaanal rakam ji yal ko yalla jappalé tiyel ko bopam ikati ko be ca ko diko ñaanal may ko fan bu gudda ak yaram diko ñaanal rek comme nima ko ñëk waxé rek Yalla defal ko xéewal bu rëy fu mu oote rek yal na ñëpp ñëw waaw barke Seydina Mohamed amin ka wax nga ay kàddu yu rafet suñ la laajee léegi yow lan nga si leet bu sàngoom leet bu sàngoom nag moom suñ nijaay la waaw suñ nijaay la suñ nijaay ju baaxoon si ñun ñu miinoon ko torop man dama ko daan tooñ be man suma suma séenaan rek ne cey suma jarbaat bi di nit ku baax nag nit ku baax bugg a mbokkaam yi suma yaay aji njilaan ngom ñoo bokk benn baay yëpp benn ngomee la waaw muy nit ku baax ku baaxoon bugg a mbokkaam yi di ko ñaanal rek yàlla eh, defal fam tëdda noonu yàlla na xippee àjjana yal na suuf sedda si kawam waaw yaa ngi wax ne Musa Ngum sa nijaay la te ban wéyam moo sa favorite way <laughs> <laughs> man nag woyam yu bari bëggoon naa ko waaw definitely xam nga rek tu nekkee sa mbokka nekk ci aar bi lum woy rek yow danga koo bëgga waaw surtout woyi kasak woy woyi kasak <laughs> mënuma woy nag <laughs> waaw mënuma woy mënuma woy boobu moom danga ma ko baalal rek léegi moom su ma woy soo déglu wuyam yow loo dee feel rek kontaan rek kontaan rek am nga deret rek deret moom ñu ne lu yëngu rek deret moo ko yëngal waaw wax diggaane yàlla kontaan rek waaw doon sant yàlla bu baax a baax a baax ci affaire am ba yàlla ñëw def ni mu defee waaw yëpp sant yàlla rek waaye alhamdulilah ndi ñu ko xoole la xami mi su wóyee rek alhamdulilah suñ xel yëpp Musa Ngum laa dal waaw sant yàlla daal xam ne ne Musa Ngum ah, jàmbaar la si gis nañ la Gambien si génnuñ pour celebrate ko depuis bu mu gaañuwee ah, at bi mu ngi am six years yow foog nga la war a mel like nuñ si suñ dee déedéet man man fi ma toog ne le sax nee na ana man loolu laa wax dama ne and suma mag laa ko laaj ne ko ana waa Banjul because performance yi warta demee nii Musa nit ku rëy la woon artiste bu mag la woon ci biir Banjul so buñ ootee rek dañ waroon a surtout nag mbokk surtout mbokk yi man xam naa ne mbokk yi rek sax su ñëwoon fii rek duñ fi xëcc kon dafa fees tepp waaye xam nga rek gambiyan bi moo du dimbale eh, moromi artisam moromi gambiyanam ñun duñ sudoon doon nag outsider moo ñëw tey ni kon xool bi dina fees tepp man wax naa ko fi ma toog noonu boobu laajuloo ma ko maa ngi question ñi ma àndal di leen laaj ana waa Banjul soo gisee ma laajte waa Banjul because maa ngi rifaa mbokk yi waaw waa Banjul dañu war di jàppale seen doom yi surtout ci events yu mel nii fàttaliku Moussa Ngom su ñëpp génnoon kon jarul ñu yëgle sa yeneen famille yi famille bi rek suñ génnoon kon xool bi dafaa fees soo lii nag message la message la tu ci ci famille bi yëpp suñ ne fàttaliku ku Ngom na ñëpp génn ñu fàttaliku ko parce que Moussa doom ju baax la doom ju ñu war a fàttaliku la te itam bàyyi fi benn na lifin gàcce naxar rek la fi bayi way bayu fi gatché waw jërëjëf. ba té rek ñu nekk ci programme bi ñu gis fi ah, suñu yaay bu ñaawut tour bi. awasar. sona awasar ah, awo yow lan nga si lit Musa ah Musa sama goro waw xade bi jur xade bi di woy ni yaaya barke de mo ndjay rek ñu dajé ci dëji domam ñi koy rohi ndjay jëkaram gañu boko sama ñom sama sama goro akañ ah, lañ sama goro di jur sama jakar. ak ñoom doomi ndijaay doomi bàjjen lañ waaw moom man ci néeg bi moom du rëy la moom xale bi sama jënd la mm. ñu gis ne ne euh, Late Moussa Ngom mu ngi gaañu at bi mu ngi am six years and euh, nit ñaa ngi génn si tey waaye gisuñ ne ñëpp génnuñ pour lifin ko xam ne jàmbaar la si biir Sénégal bi teew dañ dee gis outsiders yi suñ nit yi suñ dee nuñ dee célébrité gay waaye gisuñ loolu mu xapul tey moom Gambie moom noonu lañ mën dal lañ bëgg waaye seen bokk ko parce que doon tey sénégalais ñëw tey di woyte xool bi fees na tëpp te loolu warut ñun dañ nekk Gambien war a dimbalante jàppalante xale bi woyte doomi Gambien la kon war nañ ko jàppale ba mu jog tey te yaa su ko yàlla jàppale soobee yaa si kaw la jëm waaw moo tax dañ ko war na jàppale tey ñëpp uyu si ko waaye Gambien teewul amuñ amuñ time sax xoolal time bi ñu joxe tey tey nag kenn ñëwut xam nga loolu baaxut nga war a dimbale sa doom tey pour mu jog ah te su doon Gambien boo doon Sénégal bi jógee fa nekk jàmm nga ñëw dimbale ko loolu baaxut waaw ah, moo tax yal na ko yàlla fa cat seytaane yëf yi moom nee na bari waaw yal na yàlla cat def ko bu mag ëllëg ko ñaane ñaane waajuram bi des yal na ko yàlla bàyyi fi ba si kanam a kanam fi lool te weer ñi dee itam yàlla xaare àjjana waaw seen yal na leen fi ñu jógee fi ñu eewoo itam yal yan yal na eewoo si ah, si lu neex yàlla waaw yal na leen yàlla xippee biir àjjana ñëpp ñu xam ne ne jàmbaar la te def di wéy yow suñu laala ci ban wéy moo nekk sa favorite wéy si wéyaam ban nga dégg na a déglu ban moo la si gën a neex rek moom wéy bi ma gën a neex kay mooy moom ah ana wéy bi mu doon yi mu doon jaay yëpp a neex waaye man moom wéyaam bi de yëpp a ma neex daal waaye salaamaaleykum jam ñari moom waaw wéyaam ñu ñu dégg ah waaye wéy moom bu mu wéy da nga ne biya dàkk xale bi dafa yal na ko yàlla ya fa cat te dàkk ko seytaane fi mu bëgg a eggal yal na ko fa yàlla ya eggal bàyyi ko suñu njabootam ak jabaram yi yàlla aar ko sàmm ko iir ko képp moom dogal yal na ko ko yàlla dakar bisa ko bi nga xam ne moom waral bis bi sama sama sama kii la sama doomi ndey la sama wujja la suñu ñaari jëkkër bokk ndey ak baay sama jëkkër ak jëkkëram ñoo bokk ndey ak baay waaw waaw moo tax nag fu jóg rek dañ koy toppale mbuub asa bi ma sottee moom ma ko jënal ne ma demal si bés mi waaw kooku moom yan ko yàlla fa cat daa ko ko seytaan li mu uti foofu Amérique yan ko sama njabootam barko yonente bi sallallahu alaihi wasallam waaw wannan ñu ñaan yalla Ya bi yalla bayna suñu kalam di ngeen bëgg yeen ko xam ci yalla fi ngeen bëgg egal yalla ko fa yalla egalé yalla yalla egalé fi bëgg dem barko yonente bi sallallahu alaihi wasallam rajo bi yaa dem ci kaw sa kaw kaw kaw sa kanam waaw ah ñu gis fu suñu oncle bi oncle tul ah man lamine jaay la tudda waaw lamine jaay ñu gis la ci stage bi yaa ngi wuy yow lan nga ñu mëna wax tay ci bes bi waaw bes bi ni ma leen ci mëna wax moy suma jarbaat moo doon def guddi Samba Soxo man nag doo maa ngi start woy in 1970 man damaa start woy foog naa yow ma interview sa juruloo dem naa ci nag dem naa ci nag fu nekk dem naa ci Europe amut fu ma ci demut waaye dama ko bàyyi woon dama ko bàyyi woon nekk ci leneen so su ma jarbaat ñëw gis ma wan ne ma man daal dafa bëgg pour ma pour ma jàpp pour ma nekk ci kanam jàppale ko su ma mag a ko jur amut problème weewoon famille ma ne ko garaaw dinaa la jàppale ma nekk ci gànnaam di ko aw waay man woykat laa man woykat laa man maa ñoom maa jigéen seeka daan woyandoor man jógee naa damal demal Gambia ay waay waay année ay waay waay international year of the youths waaye Dakar lañ ko doon defee muy année de la jeunesse maa ñoom Kumba Gawlo ñoo bokk stage bi ñu doon playé maa ñoom xam na xamante nañ bu baax Kumba Gawlo Joor Njaay Iba mu ndaw Samba ñom ñu ngi play Roy Ba man ma ngi play Yete way after dama ñu na ko suli bay way way biñu démé ba ca bir ma gis nak suma oma te man ci askan ñuma boka bokka ci askan yi way la bokka because domi géwél la waaw domi géwél la inshallah kon yo jambar nga ci bi jàmbaar yi ma ko yo jambar yo lo ñu mëna musang lit musa Ngom wa musa ma ko ka aw ko aw folklore ci ñi ko daan aw la bokka kon suma awo ki dafa melni soti ci def def ci la musa folklor ma ko aw man Souleymane Diom darbatam la mom dafa gañu ak musa Loba ak ku ñoo wax Kuba sen Omar Seen Baro Mbay euh, katou sheikh ak dawro Mbay ñun ñoo ci ñun ñoo ci nekk lor man maa awu Obade ma awu Fatile Taranga ma awu bur Yàlla ngi yor gannaay man ni ma aw Moussa moom dafa bari ceddoo sax awu naa ko te te wat na boy bi ceddoo mu mel ni affaire yi dafa ñëwaat Moussa Ngom li ma xam ci moom bari na trop su ma mag boo demee YouTube nga daayal Bundung eh, Six Johnson Samba Soxo di nga gis Moussa di woy may ko aw maa mbay kay Moussa dama ko xam seen su ma nekk xaleel waaw mu nekka nag su ma mag ju baax nekkoon kuñ xamutoon nag Moussa bi mu dee lañ ko soog a xam waaye xamuñ ko woon ñun dañ ko doon foyee waaye bi dee si lañ soog xam na ñu liñ ñun lii lañ amone waaw ah, wax nga sa wax xam nga Musa ngom bu baaxa baaxa baax a suñ ci yow lan nga gën a nama mom ah ku julli ci la nak ak fu moom musique fu ko waxtu julli fekkee ndax fa dog musique bi dem julli ji loolu day xamna ko ci mom ci di gën li gëna fess ci mom fu mo play music waxtu bi jot mu dog fa mu dog fa music bi Ya xam da ngay na stop ya xam do na stop way moom dafa joxe walam liko dafa joxe yalla walam gos mo ne nit moomul boppam boy na mu nekk sha allah lol amna solo torop ñu gis na ne mu ngi dé six years yo nak ko Gambien si ak ñu nekk di célébrité Musa Ngum wa ñun ñoo ci nekk té amuñ jappalé amuñ nak ñu amuñ nak ñu dimbale gis nga Gambien So gisé ñun musique du dem ñun ci suñu boppam ñun buggante wuñ man dama wëy taxaw ci kaw stage Junior ma woy nga naan ma Moussa Ngom Junior moo la daax a woy te Moussa Ngom la moo def lay def dafa woy may woy gis nga dañ war bàyyi di sutante di gis nga musique bi ñu nekk nii buum la rek buy dem yow da dem ba fa fa em nga break foofu kenn ñoo jokka buumu dem buum bi bu dogu du mu sa deñ fii ana musique ana ana ñi fi njëkkee ana Moussa ana Paturé ana Albert ana senem yi ñoo ñoy musicien sen magi ku ci nek nag affaire bi béy sa war la rek nga béy sa war ba fi man dama téla woy de man dama téla woy duma baku nak nek mu na woy ra way man dama jaar ci loxo yo xamné ay ay kat lañ ya mari ñaba groupe ndaga man ñu ngal woy mari ñaba yaay ñaaw ñing ya bintang ya bintang ngom di leet ñaaw ñing ko Aida ya, Aida ya Aida Ñing ya Binta Ngom yaa ay man sa mbay Omar sen, man sa mbay Omar sen, Semu Ñing ak ku ñu wax seka bay bobu groupe ndaga mo fi am lo da def Banjul soo ci so so so oyut groupe ndaga rek man dama man bi ma ngay def tanki neen taxaw ci diggi géew di woy te li ma te li ma li ma lo moy dañ ñom dañ woy be sona ma gestu leen ne leen abal leen ma maayik ñu ne ma yow loolu suñu abalee maayik looy wéy ñu gëteen man sa mbay ci boppam alaaji man sa mbay moo ne jox leen ko xanaa kii kay suñu ànda moom su taxawee ne abal leen ñu maayik woy wéy abal leen ma maayik ma wéy jox leen ko mu woy nañ leen ko lu ba xam ba ma wéyee maire seen boppa dañ doon jooy ñu ne ñoom mosu ñoo xam ne moon na naa mun naa loolu wéy naa man dem na wéyal na wéyal naa Mohammedan school xam sa warugal ndax xam nga lu xam nga xam am sa warugal loolu daf daan am programme su daan am a dafa bëri woon programme dañ daan wax parents week week bi yëpp dafa am lu Gambia di def di nga concert di nga am xam sa warugal ñu dem paak def compétition ni ñi ñi sol mooy li xale yi def rek mooy naka naka naka la ko naka la loolu turaati sax waaye naka naka la loolu turaati sax moom la anglais yi def moom la xale yi dee def commonwealth voilà xam sa warugal lañ ko daan ooyee ñun ngostaan bu angale yi dañoo def seen bos olof yi def seen bos laaka nag dafa réer fi mu nekk nii ñun dañ jël affaire yi tubaab bi Gambien du ñuy dimbale wante de ma day ma ko wax ma dunda dinaa ko wax Gambien du ñuy dimbale seen moromi artiste te dañ war di dimbale suñ moromi artiste gis nga li ka gis nga li nekk ci yeneen réew mi moo nekk fi soo tuddee tur rek da ngaa tooñ waaye li nekk ci yeneen réew yi moo nekk ci réew mi booy yi am nañ talent mun nañoo woy soo ko dimbalee mu dem xar soo ko jëlee teg soo ko jëlee indi ko mu doon mbote joxuloo ko ngooñ nu moo def dafay de waaw léegi nag soo jëlee ta Gambian artistes di leen dimbale ñu woy soo leen dimbalee rek ñu dem nag wala ngaa daxal mu jëm àll daxal mu bugg ci biir kër yi waaye booy bi ah xaw ma nag waaye yàlla yàlla jàppale waaye day dem man maa ngi ci gannaawam day dem man lu ma am dinaa ko ko jox lu ma mun dinaa ko ko jox fum mu nekk ne ñu ngi ni nak tok ak ndey mi la bi ma nekk ne moom mooy Moussa euh, gom Junior euh, nuy na la Moussa way waaye fay naa bu baax a baax yéen waa Gambia len way yeen mi nga xamne da ngeen jàpp booba bala tay di nuyu Pa Ousmane di nuyu jog malik di nuyu Buhari Gassama di nuyu oncle Pa Samba jaw kulim joom di nuyu ñëpp way di nuyu ñundu ñundu baaji du ma ko fàtte ak Pa Modou di nuyu Fat Samba wa ah, Gambia telen mo maa ngi nuyu bu baax di nuyu adina bi yeb di nuyu rew mi yeb way di jakarlo ni di ñu seetaan nii yéen ñëpp nuyu ak sa ah, ñu gis te nga organize programme bu rëy bi and after legi ni programme bi jehna na nak nga gisee turn out bi wa turn out bi mom alhamdullilah because li xew moy dañ bëggoon def tribute fin to Musa wa with the support of the Gambia Talents CEO Pa Ousmane Diouf so so ñu dem ba gis ne ñu ci si élection yi te fu mu nekk ñepp a ngi concentré ci affaire campagne yi so ñu wax ñu ni neen ne dañ ko push bi after election bi ñu defal fara lu mak da nga gis ne li dañ ko dañ ko man maa ko lifin ni léegi rek def ko nii defaluñ posta defaluñ flyers demuñ radio defuñ ben advert dañ ko wax ni mbokk yi dëkkandoor ni dok rek aso bi ñew pour defal dara faada rek because octobre la gënon adina, so ñu ne nañ leen def dara so waye ak man lima ko hebon hebon hebon Pa Ousmane fexe na ba jóg a Samba ñëw yu ànd ak yéen ngeen ñëw jappasi li ma di len gërem di len sant rek te len wax ne ngeen ne leen gàcce ngalaama ndig yéen xewalu len Moussa Ngom dara luñ otel Moussa Ngom su doon pot lañu ñu sax bañoon ngeen ko be biñ démé be yeesiñ ko defut da ngeen oo nit ñi di ñu interview bena par bena di am ni ngeen ko doon ni ngeen ko doon ni ngeen ko doon célébrité wa di len gërem di santa tona bi mom alhamdulillah ndegam yi ñu bu faat sama ñu taxaw caméra ya ngi anu ñu def fokk ñu lifin rek kon njobate musa Lit musa Ngom dañ fi nekk ñew na lu ñewon na way dafa amon lu mu don ron motax wa mom moy suma may ñewon na way dafa am lu mu don man ko mom mu dem mu dem ron ko bi ko lu tam ci liggey bi la ñu gis tam Lit musa Ngom gañu na an lu yaa ngi jël full foot step bi waaw suma nijaay la suma mentor di suma idol mu nekk koo xam ne jiko moom rëy ndoon demee doy ma mu doonoon murit piir gumoon lim si tarixa bum doon bum jokku nekkoon ku xombul buga faamileem buga doomi aramam fa seetu la su jàkkaarloo yow rek nga foog ne yow la gën a buga xam nga seetu moom ku fa taxaw rek nga gis noonu la Fada meloon so roy ku mel noonu du man mun nañoo jóg ñu royandoor Fada waaw Fada Faye kon koo xam ne ay kon boo xam ne si dëkk bi ku nit ñi war a jàngee la waaw man nag may jarbaata mu bokk suma ndeya baay ma gis ne daal jóg toppa si ay tànkaam li ma neex la suma jóg pour def ko di nuyu <clears throat> jolof jolof man mi xalifa bi kër Musa Ngum di nuyu suma yumpaañ soxna di nuyu njabot bi ñom yaay faal bayuma kulim ko lim juum bi ma paree pour def li jël na ndigal ci ñom jollof ne ma mën nga dem ñun uppale wuñ la ci li waye dama gis ne dafa ñak ñaan rek stay tey alali pam la man suma li ñay la waaw waye xam nga am na ñu doon démé mu li bi bima ñëwé daf ma dolel njabot ji yëpp jóg si pour ñu pousse li so di len santare di len gërem di len ñaanal moom itam mu ngi ci music lii mébétam moom moo ko xam yal na ko ko yàlla defal waaw lii moo ko xam yal na ko yàlla defal yal na àgg fi kawe njortaam daal waaw. dañu gis ne tamit like dëkk yu mel ni comme Sénégal ak seen artistes yu rëy suñ gis nañ fi Thione Seck bu mu gaañwee ah, like nit ñi luñ dee jógee pour seen ah, tribute ak bu Moussa Ngom bi it's not the same this year moo nekk six years ah, Moussa Ngom mu ngi gaañu waaye Gambien si génnuñ foog loo ne Gambien si duñ dee célébrer wala fàtte nañ Moussa Ngom non Gambie moom loolu suñ problème la <coughs> moom loolu suñ problème bu mag la comme ma dellu gannaaw comme coon bi nga wax seetal seen petit gaale bi wooyu coon yi rek lañ fa wooyu ba bujee bi waalee ko indi mu waalee ko tëj ba décembre waaye noonu la nit ki moom ñun yàlla lii la ñu seeda waaye dañ koo téye rek because mag mag yi baax yi fi nekkoon ku mel ni ñoom Papa Moussa ñoom gëmuñu àll si lii soo ñu nit loolu la rek dañ seet toppa gis ne liggéey bu baax la fi mag yi def ñun dañoo toppa liggéey boobu waaw su nit yi ñëwee nag moom nañ ko apprécier bi ko dafa neex nga oote ñëpp ñëw toog xam nga su dul xaalis bi du dara sax waaye ñu ñëw nga oote rek ñëpp ñëw dafa neex waaw waaye ba tey rek macha allah. Myanmar Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Ghana. We have inpatient service and outpatient services. Myanmar admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment three times a day for five days from Mondays to Friday and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Outpatients come on regular appointments probably twice or three times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Denmark Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. guluji ka hore leydi woni ko ƴettindu pikiiɗo coronavirus coronavirus noon ko gonga annda ɓale annda dane annda paykum annda mawɗo wari africans ɓe boyka hoore leydi sabu noon ala lekki kono kibaruji welɗi ɗin woni ndu heeɓi haray pikiru